Jump Proof présente le combat de choc. mbokki amateurs yi mbokki Sénégambia bés bi ñépp doon xaar jamaykeen jiital jam production andil na leen ko ci diwaanu Gambie ma ne combat bu mag bii dox ci diggante France ak leket face à bi jàpp nañ ko le 23 mai ci High Pauline bu Palma Johnson spécial roof ba diggante ball Jaminal ak Gaynde di drapeau Ndongo Cissé beneen spécial dóor ba diggante Bogal ak Flex loolu mooy drapeau président Bangui am na fa tamit drapeau national sport council bu Gambia di ñi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu sport ci Gambia di njiital le directeur général Marcel Men diggante amical bu rut sëg Boy Niang face à face bi nag ñu ngi ko jagleel champion bu mag bi bëre ba bàyyi bëre continuer di jàppale ndaw ñi muy Omar Seydi ñu gën koo xam ci Double Less nekk directeur général Seydi Kane bureau d'échange ak OHET import export ñu daal di cay toftal ñi nga xam ne liggéeyal seen gox rekk leen ñor muy ku ci mel ni Tening Ndour ku ci mel ni Kéba Jàmme ku ci mel ni Tidiane kebe nekk champion de boxe bu mag bi nga xam ne ca Soudan la ñu nekk di fa liggéey liggéey bu am solo ñu ànd ceeg sponsor officiel di Cissé construction BMG property ànd ceeg pro auto ñu ànd ceeg Welma boutique di l'habilleur des VIP boutique bi nga xam ne ku bëgg a rafet fa ngay jaar ànd ceeg Baye Parfum ñi nga xam ne xet gu neex ci ñoom la fekk baax ànd ceeg restaurant bu mag boobee ñu naan l'amiral en face stade amitié ànd ceeg société sénégalaise de production ànd ceeg King FM ànd ceeg Paradise FM ak Paradise TV ànd ceeg Wasaare Lam ànd ceeg TV ànd ceeg Equivox ànd ceeg Télé Futur Média le 23 mai ci High Pauline bu ma ne bile ko Kande bu Njaakir promoteur jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur Lutte TV point ñoo ngi leen di nuyu bu baax baax di leen jaajëfal tey jeudi 20 mai 2021 ñu ñëwaat ak yéen seen xibaaru revue de presse ma ciy ànd ak Boucar dalal jàmm Amina maa ngi lay fay di la nuyu di la di nuyu mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internet Lutte TV ni nga ko waxee rek tey le jeudi 20 mai 2021 ñu ñëw ak yéen si kaay yi Euh, comme ni nga ko gisee rek dañ koy daal di ubbee ak journal suñu làmb mu daal di xëy di fësal ci xëtam gu njëkk rëg-rëg ak guy gi seen ko seen première face to face jàpp nañ ko Amina Ndiaye ni ki dimanche bi la war a nekk rek ñaari mbër yi fas yéene jaddu janoo Amina Ndiaye waxante nappante sanante ay kàddu yaakaar naa ne nag loolu moom moom la amateur yi di xaar parce que combat boobu nekk na combat boo xamante ni tey enjeu bi dafa rëy bu bëri coow la mu dina dinañu gis bataille verbale bu am doole lool ndax gis nañ ni guy gi moom euh, teewul làmminam te kii nii de Reug Reug tamit làmminam dameewul ci poosam dameewul ci poosam kon yaakaar ne ñaari mbër yooyu daal buñ jàkkaarloo moom dina neex ku si nekk tey mën nga wax donte mën nga jëf tamit waaye kon yaakaar naa ne dinañ fa xaarandi daal spectacle si dimanche bi incha allah rabbi amina en tout cas liñ doon xaar yegg na presque incha allah diggante incha allah. suñu làmb nee na ba ñu démarché pour diggante Tapha Tine ak Bombardier gis nañ ne nag ñaari raison moo mën a tax Bombardier bañ a tasante ak ki nga xamante ne moom di Tapha ni mu ko ensanglanté la dernière moom Tapha Tine dóor maanaam tey deret sa si boo tax na tey moo tax journal bi jàpp ne Bombardier xëy na loolu bokk na si li tax tey nanguwul ba rek kii di Tapha waaye tamit deuxième raison bi mooy jàpp na ne combat boobu moom bu si jógee bu si jëlee defet mën na ko yàqal programme parce que bëgg na defaat beneen combat royal kon looloo tax journal bi jàpp na ne moom Bombardier moom ñaari raison yooyu noonu moo ko teree jël avance su maanaam daal bu tasante ak Tafatine am ci defee day dellu ginnaaw ba dootul mën a tasante ak ki nga xamante ni moom sangaat ko loolu dafay nekk loo xamante da koy retardé waatal ci carrière am ak ci toll actuellement. Ah, comme moo tax yaakaar naa ne journal bi jàpp ne looloo tax moom Bombardier nanguwul jël avance su ba nekk nii tey. en daal dañuy yónni yàgg actuellement nee nañ Gris Bordeaux moo ngi ket benn première victoire ca Géejawaay waaw moo ngi ket beneen victoire en 2022 moom Gris Bordeaux nag mu mel ne nag maanaam tey première victoire am sa Géejawaay moom la bëgg rek moom Gris Bordeaux moom ak Balla Gaye nag kon yaakaar naa ne am na lu mu laaj ñu ngi ko wane nii nag lii su ma jumul open press la woon di waajal kon fi mu nag na gën waaj parce que ki muy dajal tamit ma euh, ngi jege si retraite. waaw ça dépend tey parce que même bu gënee si combat bi tamit comme combat am gi tey war na mën a jaaru parce que combat bu neex lay doon ça dépend rek Amina ci maanaam tey si ni ñuy génnee ku si nekk si sa combat. en daal victoire lay laaj ki nga xamante moom moo di Ibra waaw Ibrahima Mbaye fësal nañ ko si journal bi Ibrahima Mbaye nag nekkoon coach si équipe bu Dakar ren nag Amina Ndiaye dañ koy écarté moo tax nag mu am lu ko métti am lu ko bett parce que tey bu Dakar di jël tey drapeau chef de tey bu ko rek day nekk loo xamante tey mbetteel la si am waaye nag déception totale la si am Amina Ndiaye yéeme na lool li nga xamante moom moo xew fële la ci arène nationale ab benn mbëtt lañ jàpp benn mbëtt lañ poste lañ ko jàppee kon arène nationale tey war na mën a recruter personnel bu fa nekk bu xaw mën a am na directeur wala amagul directeur waaye war na mën a am directeur ñu personnel ñi nga xamante tey ñoom ñooy euh, gérer wala tey ñoom ñooy toppatoo arène ba foo xamante ne ñi dañ fay dem di nekk mën nañ faa toog du ñu gis li nga xamante ne mooy daw seen ginnaaw mëtt bu toll nii bu ni mel ñu daal di koy fësal ci journalu suñu làmb war na tax ñu mën a prêter waat attention bu a baax euh, ci li moom moo wër arène bi ndax tey ji musiba mënoon na mbëtt bi mbëtt mu jaar ba dugg fa Amina Ndiaye jaar mën jaar mën na jaar ba dugg mbëru Maadu am star rek doom day Lopez Mbaye moom Ibou Ndiaye ëbbali borom Diofior moom nag yaakaar naa weekend bi moom weekend fële rek ci côté rek parce que tey dafa jël Loul Sessène Amina Ndiaye jël fi nga xamante moo di Gandiaye jël fi nga xamante moo di Koutal ñëw nag jeexalee ko ca Fimela mise bañ fa nii di Libidor daal koy remporté waaw Libidor tamit moo jël galaa bi ñu tegoon fële ca Mbour moom Libidor yaakaar naa ne moo jël lamb bi ñu tegoon fële ca Mbour galaa ba amoon ca diwaanu Sum 16 ba 17 mai Cheikh Tidiane Ndiaye moom tamit moom moo ko laal. waaw ni ñu ko xamee rek tey Amina Ndiaye week-end moom lamb yi bëri woon nañ lool lool lool lool tamit Cheikh Tidiane Ndiaye. moo ko jël yaakaar naa ne weekend dafa la nekkoon wala tey rawatina nag région de parce que moom mooy ëpp li muy daal dinay initier ab benn tournoi fi gisagum. waaw Mor Mbaye borom ngëwel ko production nag moom la journal bi dalal rek moom tamit Amina Ndiaye tournoi li ñuy naan ne euh, weekend mbapat xam sa mère loolu la ko tuddee rek chaque weekend mu jël benn mbapat boo xamante ni benn mise boole ñaari écrit ñu bëre bëri ko nag si benn dëkkuwaay boo xamante dañ koy tuddee maire ba fa nekk yaakaar yaakaar loolu initiative bu baax la bu am solo écurie bu nekk day andi 10 mbër 5 lourds 5 légers ñu dajanoog beneen écurie def ko lutte simple loolu yaakaar naa ne journée ay journée yu neex la dara doon la nar a doon. Modou Anta Modou Awa actuellement mi ngi defiyee Baboy. waaw Modou ah, Awa mu ngi défier Baboy yaakaar naa ne moom tamit gëj ko gis lool lool moo tax tey journal bi dalal ko rek Amina Ndiaye mu ngi défier ki nga xamante euh, moom moo di kombaam euh, ak guy gi waaw moo tax mu ne daal dafa nar a focaliser li focaliser wu si bi rek fas yéene dóor ba muy xoole benn bët moo tax rek mu ne moom boxe la nar a def di waxta tamit si voyage bi nga xamante ni moom la fas def maanaam dem fële ca états ngir waajal te na box bi ndax jàpp na ne box bi daal moom moo nekk point faible euh, Reug Reug ba tax na dañuy daal di ñëw yéen ci journalu record mu daal di ñëw ñun ci làmb ki nga xamante ni moom moo di Libidor nekk capitaine d'équipe Libidor nekk capitaine d'équipe bu Thiès yaakaar na ne nag Thiès daaw moo jëloon drapeau chef d' état wala ma ne daawaatu jéeg ñoo jëloon drapeau chef ren jii ñu war a ñëwaat ak doole li bi door nag Amina moo nekk seen catégorie 120 moom lañ jël muy El Hadj muy muy El Hadj Ndiaye naa ne rek 86 bi Dip Kot Sañ la moom tamit bokkoon na fa rek daaw ak ki nga xamante ni rek moo di moo di moo di moo di moo di catégorie 60 waaw Dip Kot Sañ lañ jël ak Amet Tidiane Badiane mu nekk ñaar 66 euh, kilos ñu jël foofu noonu Jame seen ak Maram John quatre-vingt catégorie soixante-six kilos ñu jën fa Serigne Gane ak Xaasim ñi Amina. comme ni nga waxee waaye samedi incha dina amal benn conférence de presse. waaw moom Zarko war na def benn conférence de presse samedi bi incha parce que semaine passée la ko waajoon mu foog mu war ko def semaine samedi prochaine. tamit tey la war a choisir seen euh, équipe wala seen sélection si drapeau chef de bi Amina Ndiaye. INSEPS bu Paris foofu waaw mu nga université de Paris def musculation moom Balla Gaye kon daal mu ngi waajal rek li nga xamante ni moo di combat yaakaar naa ne combat bi am na dayoo bu mu am ci moom parce que bu bu bu si amee ndam am na fi mu ko war a yóbbu kon ndama ko ci kon nag lépp lu ndam laaj moo tax moom moom Balla Gaye euh, doo au mur contre seen combat nag moom instant bi moom liñ ci mën a wax. waaw doo au mur contre Siteu moo tax ko nag tey ñaari enjeu lay bëri rek parce que tey dafa jóge si écrit ñu tàq ko fa tey yaakaar naa ne tey war na mën a day bëri waale moom lay bëriwaale moom Papa Sow. mën nañu daan donc tey ji euh, défaite interdite la ñaari victoire la war a am siggil boppam non seulement waaye tamit daanaan si te ndax gis nañu écurie ba mu jógee créé waat propre écurie am Onde le Fou daal dinañ koy fësal ñu ni Bougane Gueye Dany euh, daal dina koy recevoir. Bougane Gueye Dany daan na ko recevoir moom Onde le Fou ak ñi nga xamante ne rek moo di maanaam rek association des jeunes lutteurs. du Sénégal mu nekk na yaakaar naa ne ñoom mobile doo tamit ci association boobu lañ bokk mu ne nag Bougane Gueye recevoir na leen waxtaan nañ waxtaan bu yaatoo yaatu yaatu kon yaakaar naa ne loolu ama ama am solo la Amina Ndiaye. Euh, Sidi Diakhaté daal dina décroché ab affiche bu ñëpp doon xaar diggante site bu Kaolack brise de mer. waaw Sidi Diakhaté le promoteur du rail moom nag yaakaar naa ne bu gars yi nekkee fii di di tëgg la moom tamit mu ngi ci sous région bi wala mu ngi ci région yi rek di tëgg lu si mel ni Thiès fi mu toll nii nag tey Kaffrine la war a dem le 10 juin diggante Cité bu Kaolack ak brise de mer. comme ni nga ko waxee rek Boucar dafa mel ni nag tey lii lañ leen indiloon seen xibaaru revue de presse di la jaajëfal yow Boucar Ndour mi ma ci àndaloon di jaajëfal képp ku ñuy suivre saa su nekk sur Lutte TV point com di tàggatoo ak yow di la ñaanal jàmm. maa ngi lay jaajëfal Amina Ndiaye di jaajëfal mbokk internet Lutte TV yëpp di nuyuwaat ñëpp di ziaraat ñëpp rek di joxaat gars yi rendez-vous rek le 22 mai fële sa arène Adrien Senghor ak Boucar Dione bu Reug Reug production yaakaar naa tey moo fa war a tëgg rek Momo ak Mbaye Ngom ñoo fa nar a nekk a def nekk nag sargal Reug Reug ak garan ba loolu yaakaar naa ne journée bu riche la nar a doon ci culture bu xëyee tamit bët set le 23 bi góorgóorlu moo fa war a tegaat moom tamit 1 million rek fële sa arène Adrien Senghor mu moom weekend de feu rek la nar a nekk Amina Ndiaye donc na fa ñëpp xaar Boucar waat ñëpp rek di ziar waat ñëpp Amina Ndiaye di Jump Rope présente combat de choc. mbokki amateur yi mbokki Sénégambia bés bi ñépp doon xaar jamaykeen jiital jam production andil na leen ko ci diwaanu Gambie ma ne combat bu mag bii dox ci diggante France ak Leket face à bi jàpp ko le 23 mai ci High Pauline bu Palma Johnson spécial roof ba diggante Balla Jaminal ak Gaynde di drapeau Ndongo Cissé beneen spécial dóor ba diggante Bogal ak Flex loolu mooy drapeau président Bangui am na fa tamit drapeau national sport council bu Gambia di ñi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu sport ci Gambia di njiital directeur général Marcel Men di spécial bu rut sëg Boy Niang face à face bi nag ñu ngi ko jagleel champion bu mag bi bëre ba bàyyi bëre continuer di jàppale ndaw ñi muy Omar Seydi Kane ñu gën koo xam ci Double Less nekk directeur général Seydi Kane bureau d'échange ak ohet o import export ñu daal di cay toftal ñi nga xam ne liggéeyal seen gox rekk a leen ñor muy ku ci mel ni Tening Ndour ku ci mel ni Kéba Jàmme ku ci mel ni Tidiane Kébé nekk champion de boxe bu mag bi nga xam ne ca Soudan la ñu nekk di fa liggéey liggéey bu am solo di Cissé construction BMG property ànd ceeg pro ànd ceeg Welma boutique di l'habilleur des VIP boutique bi nga xam ne ku bëgg a rafet fa ngay jaar ànd ceeg Baye Parfum nga xam ne xet gu neex ci ñoom la fekk baax ànd ceeg restaurant bu mag boobee ñu naan l'amiral en face stade amitié ànd ceeg société sénégalaise de production ànd ceeg King FM ànd ceeg Paradise FM ak Paradise TV ànd ceeg Wasaare Lam ànd ceeg TV ànd ceeg Equivox ànd ceeg Télé Futur Média le 23 mai ci High Pauline bu Ndiakir formateur